jàkkaar loolu boo xamante ni lépp lu jëm ci li ñuy yëngu muy culture fii ci géejawaay moo ko yàq muy Aliou Sall ñëw fi toog mel ni waxuma la doomu buur sax il est vrai que buur la mais toog toogaay buur li ko neex lay def lu ko naqare du ko def toog fi ñun boo woowee Aliou Sall du la faale boo ko bindee du la tontu nga demandé ko appui du la appuyer ngay organiser du la faale moom mu toog ba mu nekk mu ni nag sama gars yi yéen ñi nga xamante ne daawuma leen faale respecté wu ma leen damay def nag sama mbir damaa bëgg yéen ñooñu ngeen ñëw teew ci sama mbir jàppale ma ci ñun ñu ni ko nag saawaay nag ay naka sa xandak nga ñu teg bay boo nga puus nee te xam ne bu dee ñun rek sa loolu nga nas fa séene kaa jàpp du ñun duñ ci jàpp rax ci dolli dafay jël xaalis boo xamante ni ci culture la di ko génne naka sudul noonu di ko joxe naka sudul noonu ñun tam ñu ni loolu noonu dafa war a leer parce que léfu yoo lëf loo mis boo xamante ni ñëpp a ko bokk dafa war noo xamante ni noonu lañ ko war a

ni vraiment dañuy xex ak Aliou Sall parce que yak na culture guedjaway du ñëw fi wax fi ay wax wax wax ba nek maire ku nek amone yakar ci mom ñu koy défendre nan locataire bi ki dëkku fi ñun ñep ñu gëm ni géejawaay bu dee sax li ñu jëli bu man na defar guedjaway rek ñun y'a pas de souci. ñata ngeen koy reprocher ci xaalis bi ñata la ngeen yakar ni euh, non détourné wul neewuñu dafa détourné. Wow. Wa détournement d'objectif Moi, je bu voyez jëm je nga def ko ci hein? la def ensuite au niveau du trésor xaalis dafa am fais, je koy fais, je me fais, la fais, je dafa am je me comme ni ngay fais, je ni dama koy jox parce que li motax ma koy jox diw dama koy jox parce que ma koy jox ko parce que li motax duma ko jox mais non ko parce que fuñ ko

gën ko sax ëpp ko sax mom parce que mom toujours xam nañ côté bu mu dañoo mass di yëngu ku ni dañoo ba wax bëgg yëngu suivre lañuy def mais dañoo mass di yëngu dañoo mass di yëngu hein? mom la politique diviser pour mieux régner mais heureusement tey comprendre nañ ni kii bi diviser division bi baaxut arrangé wuñu léegi ñun li gën ci ñun mooy booloo moo tax ñu bolo bolo bi nak neexul ñu bari amna na ñoo xam buñu sañon tay ci ay problème rek lañuy dëkk mais nak yalla moy défar té bu yalla namé défar nak képp kuy seytaane ak naa fekk day tak day tak say tecc sa gémmiñ waaw né nga ci français ni promesse yu fi défon yëpp liggéey yu fi défon dara amu ci

du waxu kilifa dal waxul dara lu mën a avancer culture bi ci kanam depuis lors wote watul ba keroog bamuy def conférence de presse am ci la nee naa ay acteurs culturels ñoo fekkee ko lepp pour lolu pour bopam la ko defal de mais defalu ko acteurs culturels yi bañ ko tam heureusement que ña ñew sax bëri wuñu lu mat ay 5 6 acteurs culturels ñoo fa teewoon conférence de presse Aliou Sall bob depuis booba ba mu yégee ni ñun dañuy woote ci le profité du woote mais nak bi yor nak lañ xamni nak gaay nak yi nañ. mu woote balaa veille à 23h Aliou Sall mi ngi woo gars yi pour convaincre leen bon collaborateur mi pour convaincre leen ñu ñëw ci ndaje bi mais gars yi naj ba ñu najee ba ñu yeewoo ci bët set ba la ñu Aliou Sall daa tukki ndaje bi amatul. la lendemain Aliou Sall recevoir délégué de quartier yi mooy dafa daw dafa daw carrément dafa daw wala dafa làqu.